ngir jàppale seen chaîne bi seen xibaar info bu leen fàtte abonné ak aimé seen vidéo yi leen jagleel seen xibaar info l'information en temps réel. El Hadji Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert Diagne wuy jina boroomam tey ci àjjuma ji le 3 avril 2020. bi xibaar boobu daanoo nag sénégalais yépp wane nañ seen tiis ak seen naqar rawatina ndar ak ñi nga xam ne dañ doon yëngu ci wàllu aada ak cosaan golbeer Diagne nekkoon ab journaliste bu doon yëngu fële ca RTS nekkoon nit benn acteur boo xam ne moo doon jiite troupe boobu ñu doon woowee baara yëgoo fële ca Saint-Louis bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango waa Seneweb yi golbeer Diagne dafa sonnoon torop ci ñaari fan yi ñu génn moom nag dinañu ko denc ci armeeru Marmiyal fële ca Ndar sénégalais yu bari ràññee ko ci télé bi ndax théâtre yu am solo yim doon def feggoo ci ak Marie Madeleine ak ndem ci yàlla maam sey seen xibaar info mi ngi jaale njabootam ak képp koo xamante ne mi ngi yëngu ci wàllum aada ak cosaan Seynabou Diop pour seen xibaar info